bëgg naa wala café au lait nañ am kenn ku téye. ah jërëjëf. ana ana ko yor sunu meew sunu meew ana ko yor eh nag kenn ñëw si ñun ànd

Décolle. Song nga war a. Décolle de. Thank you.

voilà voilà voilà ñu ngi nii ah xam naa ne yéen a ngi taw. Thank you.